bokk yi gannaaw bu nu santee sunu boroom subhanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yal na nu yàlla boole jëkkër tomb bi ñuy fàttalante dañu koy tënk rek ci benn tomb boo xam ne waxuñu ab jullit waaye nit ku ko soxla mën na koo jël te mën naa am amal ko njariñ ndax nit ñépp ñi ci gëm yàlla ak ñi ci gëmut yàlla ñépp yonent bi yàlla yónne ko ci ñoom wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamin wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag ni mel ak nit ñi mi ngi mel ne robinet yi nga xam ne benn benn kër da ko am bari na ku biij ab robinet am ndox ma xelli te xamul sax fu ndox ma bàyyi ko ci forage yi waaye boo ci gis ci forage la bàyyi ko dafa mel ni kon dana yomb dégg ci jullit ne lu ko mën a dal lu ko mën a gaar na déglu rawatina buñ ko nee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na wala defoon na nangam mooy forage bi màndal ñëpp bu dee am ndox la te bokk yi ndox nit mën naa am ñaari fan lekkut mën na ko bañ a bañ dara waaye toog ñaari fan naanut moom boo koy gis ni ko xam ci moom yonent bi ci jullit nag ni ndox la mel tomb bi mooy gàllankoor yi nga xam ne dana di gàllankoor ab jullit walla nit gàllankoor mooy lu ne ca kanamam am ndox walla boog mu dox ko gannaaw di ko téqtal walla muy sow ci gannaaw bëgg mu geesu su boobaa na jullit bi fab lii nuy bëgg a nett li ci dundug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ko ci kanamam su boobaa duutu gis lu koy jaral geestu la ca kanam it duutu ci tiit ndax day leer ci kanamam bokk yonent bi ak dundam sallallahu alayhi wa sallama dund gu taj kapp la saa bu nit xoolee man caa jël dara bàyyiwul dara ci njariñ fees dell ak luy delloo nit ki ci yàlla di ko xamal digganteem ak boroomam mooy kan bu ñu ko tënkee gën koo jegeel si ci muñ ay gàllankoor gàllankoor nag mën naa doon ni ma ko junjee am ndox luy jóge ca kanam mën naa doon ay jëf mën naa doon ay wax yoo xam ne day tax nit ki ne teemaa far wàññi ko su dee yu ko jóge gannaaw di ay jëf walla muy ay wax léegi tey mooy teemaa geesu waaye nañ déglu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku mënoon a muñ la waxuñu muñ koo xam ne li yàlla lay wàcce la yi yàlla lay wàcce taw bu bari bu mu tuddee robinet sax da ngay dégg ñu naan kër gi nga xam ne moo yore ndox mi déedéet kër gu jaay ndox moo fi am waaye kër gu gu am ndox yor ko amut yàlla mooy moom ndox moo ko yor ndax kër googu li ñuy am am doole fa nit ñi jëlee ndox képp la koy jëlee mooy gas ci suuf képp doole yee ëppante rek waaye yurut am ndox day jaay am ndox yonent bi ku mënoon a muñ la waxuñu am mbënd wala daay wala ngelaw lu bari wala ak wéri di gu tasaaroo wala dee gu bari wala ñàkk gu metti loolu saa bu amee ci yàlla la bàyyi ko muñ ko ak bañ ko muñ moo ca yam yàlla faaliwu ca kenn da koy soob rek mu teggi ko waaye soo gisee ñu jëfandikoo baatu muñ tey mooy li ko nit ñi daan teg tam mënoon koo faj am na ku ñuy wax Saad ibn Abi Waqqas tudd naa ko fi ci ay bés bii moom moo wax ne maane yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nit ñi kan moo ci gën a metti ab nattu yonent bi tontu ko fa saasa ne ko yonent yi ñoo ci ëpple te moom yonent yi dañoo gën ci nit ñi nee na bu yonent yi jàllee ka ca gën topp ca mooy ëppum nattu ka ca gën topp ca ka ca gën topp ca ba nañ tegalooyee kenn ku nekk nu darajaam toll ci ngëneel digganteem ak jaam yàlla yi noonu la am na toom di toll ku am na toom xaaj jëmmam ci li ko tàmbalee ci bopp bi ba ci ndigg li lépp di ak wéradi nañ xam ne moo gën a jege yàlla moo gën ci nit ñi ndax doo dégg mukk mu jàmbat ko am na ci ay misaal yu bari waaye koo xam ne pas-pasam demewut noonu léeg-léeg mu toog yaari at ba yetti at du ñàkk dara dara du ko dal du am leen lu muy xalaat lu koy tee nelaw foofu nag ku fa toll na xool boppam digganteem yàlla ba xam lu mu def waaye ki ci ëpp nattu mën na mën na si ne koo jàppe bu ko xamee bu ko xamut ci ñi gën ci nit ñi ndax waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la al anbiyaa thumma al amsalu fal amsal waaye nee na kooku nga xam ne moom bokk na ci ñi gën ci nit ñi nattu yi mën na koo topp di ko topp waaye buy wuy ji boroomam day set wicc du yóbbaale dara waaye ki nga xam ne nag mooy ab safaanam dana kojj nii sëbub bàyyi ngañ dara du ko dal am na ñu dem ba yaakaar ni nii ñuy dund rek la ñuy wéyee day neex di dem am na ñuy ñaawal ñenn ñu naan leen yéen lu tax ngeen di kër kër di jaamu yàlla te amu leen dara te xam ni kenn ku ne li mu mel fii la lay mel bu ëllëgee loolu ay nax la loolu li ko firndeel ne yonent yi ci ëpp nattu ka ca gën ginnaaw yonent yi topp ca topp ca topp ca Aïcha nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam damaa bëgg nga wax ma bis bu gën a metti ci say bis bul ma tuddal uxut nag wax ma ci bis yi ci des ndax uxut ñu ñëpp a ko yëgandoo mu ne ko bu ma la bëggee wax du ma mën a wax ñaata bis la waaye na nga xam ne sa bokk yii teg nañ ma lu nekk laqad laqiitu min qawmiki ma laqiitu waaye nag am na ci bu ma la mën a nettali boo xam ne booba jullit bu ñu ko nettali lenn lu ñuy tegati ci sab dara mu dala metti amut nee na ko fi ñuy wax aqaba bis jant daa fenk ci wooteem bi mu xool xool dëkk bi ñépp kenn du ko nuyu kum àbb doo ko aal kum leb doo ko lebal dama ko waxe noonu waaye kum nar a dajal nga ne day ume am na ñoo xam ne tey bu ñuy génn seen kër dañu naan naa xool ba xam góor la wala jigéen la waaye dañ ne woon day um nit ñi ku taseeg moom da ngay um doo am dara tey xelam ne lapp ci benn dëkk bu ñuy wax Aqaba mu dem ci ku ñuy wax Abdi Yail ibn Abdi Yail ibn Abdi Kulaal wax ko lenn ci li nit di soxla ci ay njàmbat du njàmbat sax waaye fàttali sa bopp la kooko daal nee na ko bu ma tontoo yaa ma tontu yow mi ko fekkiwul jóg dem wàcc ma fa nee na ba ma génnee ci këram di dem xawma fu ma jëm dama mel ni ku miir ndax jaaxle nee na nis tuuti ma xool aw niir tiim ma mel ne asamaan si daa niir daa niis niisu niir woo xam ne moom dong la tiim keral ko am ci kàddu gu jib woo sama tur ma xool muy jibril mu ne ma yàlla nee na dégg na li la li nga wax waaj ak ni la waaj def dana yabal ci yow léegi kim dénk doj yi mag yi tiim mag yaari doj yi ci gën a mag mu wax la ne am na ndigalul suñu boroom ci loo ko ci wax mu def ko ci fa saasa li ñuy wax first stroke des na waaye ba jibril daane la ko ma la ko malaaka ma woo ne ko man mi la yàlla digal loo ma wax ci ñaari doj yi wër màkk ma def ko ci ma dajale ko ñépp faatu kooko faatu waale ci wala ma sempi ko ca daane aw xeer ci kawam mu faatu yonent bi ne ko yàlla la yónni di xam naa ko waaye nag daf ma tànn loo danga ne bu la inchita dama bëgg nga dellu santal ma sunu boroom ne ko na leen fi bàyyi ndax ëllëg mën nañoo jur ñoo xam ne dañuy jaamu yàlla mii nga xam ne moom laay woote ba àgg ci ku ko nir ta jaamuñu balaa xanaa amoon na kattanu fayu te kenn du xam ne mu fayu waaye da ne ko baal baal ma leen fi bu ñu fi yàggee mën naa am ñoom ci seeni sët am ci ñu ñëw ñoo xam ne woote bi dana àgg ñoom ñu nangu ko xooloo googu rafet njort ak googu wóolu yàlla moo tax lu mu yàgg-yàgg ñi ne ci li yàlla santaane rek ñooy am ndam yàlla nee na ci alquran ñii ngi ko séqal ñépp dañoo bëgg a fay ak leer yuriduna li yutfiu nuur allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuurihi walaw kariha alkafirun yàlla noppi na gis nga li tax mu jëfandikoo nuur nuur ak naar bokk nañ ay benn benn tomb ak xaraf waaye noonu lañu wuutee ak leer kenn mënu koo far moo ak ker nga suul ker ga ba kenn dutu gisati ker ga te fekk jant baa ngi ne dàng ñoo ci yam daan na yàlla noppi na lamp boo xam yaa ko taal lamp pétrole naar la day lakke bu la neexee nga ne ko ëf mu fay wala nga delloo mees gi bu dee lamp pétrole mu fay wala bu dee lamp courant nga def ni contact bi mu fay waaye naa nuur moom day sedd guy ni weer wi mel weer yi dana toll foo xam ne fii foo jëm jëru la jëru taalub làmp ëf ko tax ko fa jóge waaye bu dee nuur mooy ak leer naar mooy sawara kon boog nee na buñ buñ yàq seeni lex buñ yàq seeni lor di ëf du ko tax a fay kenn ku nekk nag lam taaloo mën na ko fay waaye loo xam ne daa fekk muy tàkk di bërëx bërëxi la ci gën mooy su amee matt sum ca sànni rek mu sànni ko ca loolu la yonent bi di leeral ne lii mu yor di ko woote dana àgg fépp xanaa foo xam ne jant du fa fenk du fa sox dana àgg ba àgg ci doon ñu suuf bu taxaw nii ba ker fekk ko fa ker ker googe doon woote bi dana fa àgg kawarug lëg walla kawarug xar gu ñu wat teg ko sax bu amee takk nder rek neen takk nder boobu lislaam dana fa àgg benn kuy wootee lislaam dëgg-dëgg dox ba yóbbu ko foofee nit ña jël ko fa wala boog koo xam ne daa amoon doole lool te deb kàccoor bundu xataal jullit yi ba jullit yi xëy fippu mu baleen fa la yabluganna hada al amru ma balaga leylu wa nahaar wala yatruku llahu bayta madarin wala wabar illa adxalahu llahu hada diina bi izzi azizin aw bi dulli dalil izzan yuizzu llahu bihi lislaama wa zullan yudillu llahu bihi lkufr ci at yële si gannaaw am na ku defoon ab film tudde ko alfitna ba mu demee ba yàlla di nar koo dimbale dafa dugg ci lislaam di dem Makka ak dikk saa bu demee Makka dem Madina léeg-léeg mu dem Madina wàññiku waaye su fa demee du xam nu muy def ndax ay jooy ndax teg na ci yonent bi kàddu yoo xam ne tasaaroo na ci àdduna bi mënatu koo dabeti teg na ci moom ay kàddu ak yëf yoo xam ne mënatu ko dab lu fa sës jooy rekk fa sës ba ko yàlla gindee waaye ana koo xam ne nag daa gëmm ne patos ba yàlla dikk ko dogalam moo tax ab jullit dafa war a doyloo yàlla gëm ko gëm gi nag man ay moroomi jaamam mën nañ koo xam ci ni muñe yi ko yàlla teg ci ay nattu di ko jaarale ci jaamam ni bisu Uhud boobu ma wax boo demee ci alxuraan da nga ci fekk suratu ali imrana in yamsaskum qarxun faqad massal qawma qarxun misluhu lii leen dal tey kat bu mu leen metti rey nañ ci yéen gaañ ci yéen waaye am na bis boo xam ne kat wecci woon na ko badr wecci woon na Uhud kon bu leen tey metti nattu day dikk jaare ko ci ku jege koo xam ne kii tey bu faatu woon te fekk xeex xare amul seen diggante mën nga ko dem jaala ji wala nga ànd ci dëj ba kooku nag bokk yi noonu yi moo ci gën a yéeme koo xam ne kii bu faatoo loo xëy tool loo xëy liggéey yàlla ci yàlla musal lu jafee xam la nag waaye ni ko nit yi moytoo rek mooy téye ngëmam bu dee ci kanamam la nekk di ko di ko di ko fakkatal mu bañ koo faale xam ne tilka ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas bis dana ñëw mu mat loxoom sànni na ko waajee defe woon wa tilka al ayyaamu nudaawiluhaa bayna naasi wa liya'lama allahu allaziina aamanu minkum wa yattaxida minkum shuhadaa waaye bu dee ku ko jógee gannaaw di ko tiqit ak di ko sànni ay dojit mu bañ a geesu xam ne fii mi ngi geesu doxatut mi ngi taxaw te gëm ne yàlla lu mu diggee dana ko def yàlla digge na ni ku fi nekk faw nga daj fi ay coono waaye na nga xam ne am na ñu la ko ñu la fi jiitu woon te am na ñu la fi mujj fexeel yow ba lu jaar ci sa loxo buy tegoo ci yeneen loxo rek mu rafet waada allahu alladina amanu minkum wa amilu salihati la yastaxlifannahum fi l ard kama staxlafa alladina min qablihim wala yumakkinan lahum diinahum alladi tadaa lahum wala yubaddilannahum min baadi xawfihim amnan dem na ba cay wax ne laa taxsabanna alladina kafaru mujisina fi l ard noonu lislaam yeeg noonu jullit yi li ñuy bari bari doole bu mu la jaaxal bul yaakaar ne dara tëliwuñ dara ah kay nee na bu mu leen tax a wàcce seeni loxo nëb leen seeni kurpañ nëb kurfañ nag waxuma nëbu kurfañ ngir fas yéene ko sox nit ki waaye kurfañub gëm yàlla kenn bañ laa gàllankoor ci pas-pas bi mu wóor la ne ni mooy pas-pas bu wér bi mooy fi muy wax ci alxuraan wala tahinu fi ibtigaa il qawm bu leen leen faale bu leen leen wan genn doyadi wanag doyadi bokk na ci nga di ko déglu wala nga di ko geesu ndax in takunu taalamuuna fa innahum yaalamuuna kama taalamuun dañuy soj di wér di bëgg di tiit di am lu leen naqari di am lu leen neex ni ngi koy yégi te wa tarjuna min allahi ma laa yarjun ba noppi yéen da ngeen fab seen biir wér ko ci yàlla xam ne saa bu ngeen fi bàyyeekoo ci melokaan yii day gën di baax te ñoom ku fi bàyyeekoo te tuubu ko musiba dal na ko kon boog jamono ngu noonu kenn mën naa yëg gàllankoor yi ngi koy gàllankoor te ay moroomi jaamam di ko ko teg waaye na fab yonent bi nga xam ne moo gën ñëpp yàlla tànn ko ci biir tànnam gi bis bañ ko ne loo bëgg ci gaa yi dañ nañ ma leen fi bàyyil waaye loo xam ne danga ko séq aw nit it ñu bokk leen ko teg dañuy def la kilifa waxoon daa am ay jamono nit ñëw ci kilifa ñépp kooku boobu moo moomoon Tuubaa ci année soixante yi la neex naa xam ne ko diw daa amee bor mu ne ko kum ko ameel mu ne ko Sénégal la ko ameel mu ne ko Sénégal la ñaare ko séq maag yow mii yow mi yaay yilif luy nguur gi lépp man mii bari na ci ñeneen ñi ci des te yënguwuñ ci nguur gi ñu ci bari sama njaboot lañ bokk ña ci bokk sama njabootu bopp it samay bokk lañ bokk te lu ma wax duñ ko dindi kon yow da ngay jéggal yow da nga koy jéggal yow ci sa bopp ak mbooleem ñi nga yilif man mii it ma jéggale wet gii ñu bàyyi waa ji mu dem mu ne ko ay ci nañ def noonu kon boobu ku bokk aw nit mbirit ñu teg leen ca lañ leen ko teg rik defal lu ñu bari def rek gëm léeg-léeg ma ko wax ci mpénc ñu ne man de loog naa Louga ku loog Louga moom xam nga duutu wax moom na ab jurit di dund noonu ci lu ko mën a dal lu mu ko naqari naqari ak lu mu metti metti ku ne nag mën na koo dal par kenn mën na koo dal ci biir kër ga mu dëkk mën na koo dal ci quartier ba mu dëkk mën na koo dal ci dëkk ba mu dëkk mën na koo dal ci réew ma sax loo xam ne moom ñëpp ñëpp ko bokk ñu joxoñ ko joxoñ boo xam ne bii neexul kenn waaye su boobaa nañ fa muñug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi amoon darajey malaaka taxaw ne ko waxal loo wax ma def ko yàllaa ko wax dara du la ci fekk mu ne ko baleen fi am nañu naan nag yonent bi kenn mënut a mel ni moom waaye ku ko roy ba jël ca lu bari mën ngaa raw ñu bari te it ku ñu roy loola laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana du fi jóge saa su nekk dañ cee mën di dellu fii jant baa ngi soddi fenk fenk di sow ñaar yépp mën a am ndax am na fa buy sow fii ma ngay fenk feneen nañ xam ne nit ñu baax ñi dañuy sikk dañuy dëkk di leen joxañ di leen sànni yañ leen di sànni di leen ko wax te kuñ ci mën a ki koy sànni te fekk ko fi da ngay lay wën bu mën a jàkkaarloo moom dana jàkkaarloo ak moom waaye ñi jàkkaarloo wut ak moom ñi jàkkaarloo kookee taseeg ñoom jamono nañ ko jéggal te bàyyi kook yàlla te xam ne ba yàlla bàyyeeg ba yàlla ba yonent bi ne nañ bàyyeeg yàlla gis nañ lim jur su leen faagaagaloon lu amul kenn mënu koo àtte waaye ñun bañ leen fi bàyyee la yëfee law ba agsi fi ñun bañ jot ci yàlla na ko yàlla fay sallallahu alayhi wa sallam kon boobu benn tomb la yàlla taal bu mu taal te mooy ak leer lay indi boo fekkoon mu taalub taal sax bu la wóor ni yàllaa ko taal la ca gën di di sab-sag mooy ngay fottaatu ay mat di ca sànni rek mu mel ne da nga caa doon dara waaye soo dee wut ndox di ko fay am na fi bu yàggu rek lu doon tàkk loo xam ne lii ndoxa ngi fi waaye xalaatuñ koo fayam ndox dañoo jëli nee nañ na topp na leen topp ñoom ña wax ne dañoo jëli ñoo xam ne fañ jóge ña nga gën jóge ci gannaaw géej ñoom am nañ ci tax loolu nag nit ñi war nañ cee jàngat la fi doon tàkk jamono yee tañ ne waaye mënuñ ko fay te ndox maa ngi fi lu ndox mënta fay nag tamit tàkk gémmiñ gu koy wal taxut ñuy wax yuriduna la yutfiu nuur allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuurihi walaw kariha alkafirun yaxfiru llahu lana wa lakum wa li saa'iri almuslimina amin